incha allah ñu ngi liggéey xam nga bëgg jëm ci kanam daal. combat bi moo ko jar. waaw combat bi ko jar combat bi jaral nañu trop. waaw parce que ki may dajale def na laa moom quoi waaw moo tax xam nga rek comme ni yokk jaral doolu ñaar ba bu jour ba xam ne xam nga waaw xam nga ñu mën ko jombal. combat bi lan la ñu waaw sama carrière combat boo xam ne maa ngi si yoon di carrière xam nga lu ma ko def ku nekk sama xel combat bi taxaw dama ko war a pousse rek incha allah. koy dellu si ci combat bi. nga ñu posé ñu xalaatoon ne yaa moom mu ëpp la poids. waaw waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim dañu sant yàlla julli Seydina Mohamed sangu sangay gërëm suñu ñaari waajur may ñaanal kilifa diine kilifa aada yi réew mi yàlla def si jàmm Tiwaawan bi ma bokk Njaasaan Touba Yoof eh, Touba Yoof Ñaseen Njaasaan ñëpp daal ñëpp ñëpp ñëpp kulu tarixa yëpp bépp jàngkatu alxuraan ñu ngi lay sàkku si yow ñaan ah képp kuy bëggee Quench déggoo ma de am sa ay fans yi xam ne ay chrétien lañu ma leen ñu jàppale ma. Hmm. ci yow lan la. waaw combat bi loolu du si dara noonu la demee nii lañ la demee parce que combat moom combat bu nekk ak li mu laaj comprendre kon ñëw na ay 4 kilos différence waaye xam naa ne moom buñ jàppantee dina xam ne lépp dëgg la ku ne xam ne gars yi xam nañ ñuy liggéey bu baax voilà man notaire rek laay demee. combat bi dafa am important lool ci carrière am yow nag. waaw. waaw moom noonu lay demee noonu lay demee waaw dama koy ñaanal rek yàlla defal ko jàmm komba bi ñu bëri ko si fulla fayda jom yàlla may ma ndam si kawam. jërëjëf waaw. combat bi samedi la. Mhm. fileeg samedi. lan ngay wax say supporters yu war a jënd carte pay per bi lan nga leen di wax. waaw pour mën a làmb bi. waaw dafa am ñoo xam ne sax dañ ma bëgg a jëndal carte carte per pay-per-view bi ah. waaw am ñoo xam ne dañ ma bëgg a jëndal ay dañ bëgg a jënd bari ñaay carte te ngeen. si département de Rufisque bi yëpp moo daan ndeysaan bi may ñëw sax damaa indaale affaire yi comprendre nga ku mel ni Pape Sow Pape Sow borom Bambilor Pape Sow. non Coen si yow bala ngaa waxi carte nañ jënd billet yi ñëw stade carte yi carte yi pour la. waaw mais ñooy ñooy jënd billet yi père ñooy ñoo war a jënd billet yi parce que man kenn may billet si combat bi lañ ma dig ay billet te ñooy faa ma wax leen ne. bu fekkee tamit mënu ma ko mënu ma ko fi wax tamit day métti. waxal waxal voilà. waaw ku mel ni Pape Sow borom Kër Ndiaye ya may dégg ak ku mel madame Diagne banque BICIS ak ku mel Cheikh Diop Cheikh Diop. terbe gay kay mo wax way ak ku Cheikh Diop comprendre nga euh, production comprendre nga per ah, per kii per Godé Jogo euh, malen di béggee wa Jogo tamit ñoñu dañu wara a jënd billet yi per. waaw jënd jënd carte voilà kon parce que kenn musuma dig ay billet. ken, musuma ah dig kenn man kenn jëndal ay billet. comprendre nga lépp maa koy démarrer sama bopp. Eh, eh, ay loolu loolu. ak mbooloo mi ngay indi instant. parce que Serigne Babacar Sy kenn mosuma jënd ay billets kon bu ma ay nit diggee ay billets war naa ko wax. waaw waaw perbekaay bañ ko fàttee sax ma bi nii. ah non non kii dimanche. est dama la koy wax. samedi samedi comprendre nga ñooñu si combat yi woo bu baax ku mel ni grand Moussa kooku kenn demul mu des.